ngook xibaar bi law na ci Sénégal wala ci àdduna bi sax fi mu nekk nii euh, yoon teg loxo Bougane Gueye Dany ginnaaw bi mu bëggee yóbbu ndimbalam ci askan wi dëkkee ca diwaanu Bakel Fuuta fépp wala ca Matam ak Kanel jafe-jafe yi ñuy dund lan moo ci sa réaction yow euh, en tant que maire de Dakar wala ku bokk ci coalition sàmm sa kàddu dama koy ñaawlu parce que man mii dama naroon bokk euh, ci convoi bi leneen moo ma téye Dakar moo tax ànduma ak ñoom Euh, lu ñu waxante woon euh, bii coalition sàmm sa kàddu mooy dañuy dem euh, yóbbu d'abord suñu njaal parce que am na ñu fa ñàkk seen bakkan effectivement dëggu fa suñu ndimbal ak tamit état am na lu fa état tamit jotoon dig askan ne nañu dinañ fa dugal ay milliards kon tamit dem tamit teg suñu bët ci loolu parce que dëkk bi malheureusement daanaka ñàkkatu wax dëkk yi xaw a donc en tant que tête de liste nationale de la coalition Sàmm Sekadou, Kàddu dañ koy ñaawlu mais peut-être yokk que nous, candidat à l'élection législative du 17 novembre 2024. exactement Tu ci une liste pour nous valider. donc euh, observer la scène politique sénégalaise on ne bu que l'élection l'élection, on am éventuellement pré-campagne. effectivement. tey ci waxtu bi bu ñuy jokkoo ak yéen ci télé ñoom ñu yore nguur gi ñoom waa Pastef ñu ngi dañu ci benn salle. di ko wootee kookare loolu. Mhm. amul kenn ku leen ko tere seen droit la parce que ñu ngi waaj dem ci élection mais tout de même ñoom suñu amee sañ-sañ ne dañuy wootee puukare ci benn salle xanaa nag ñun am nañ droit am sañ-sañ ci dans le cadre de la pré-campagne dem di nemmeeku ay mbokk nekk Bakel mais loolu gisuma lu tax ñu noor ko tere ay candidat mhm. ba dem ba ci jàpp candidat ne da nga koy da nga koy da nga koy euh, da nga koy arrêté loolu. monsieur le maire le constat est fait gis gis nañ mbir mi ni ni mel lan moo war a doon tey taxawaayu classe politique bi bokk ci l'opposition pour euh, faire face ci li ñu jàpp ne euh, injustice la bu ñu nekk di teg kenn ku bokk ci ñoom. non mais loolu je pense que wax dëgg yàlla gouvernement ku may woy mi mi daal. na nañu may jàmm.

sañ-sañ dem Bakel yóbbu fa suñu njaal tout de même. effectivement mais ñoom de la même façon que am nañ droit dem tëju ci benn saal di fa woote puukare. c' est leur droit le plus absolu. yëguloo yëguloo déception yëguloo déception ak sa style. yëguloo déception yow mi doon nekk ci ci wetu Ousmane Sonko ci ci mbedd yi euh, bokk ci ci xeex bi bu fekkee dañ nar a dundaat lu ni mel ci Sénégal. nee naa leen kooku. kooku dama ko ngénte wooye ko mimi. parce que du waxkatu dëgg. mënul dóorkatu martolo te dafa tële. tey sénégalais yi. xanaa ñu ànd ak moom mais ñu ànd ak moom mu ñooñu waxuma seen wax parce que ñooñu dañ ko déggee noonu par parloo kenn du ko lekk te du feesal biiru kenn ñun Sénégal dañu ñor dégg rek vidéo yëpp ñi fi vaar yëpp ñi fii archive yëpp ñi fii mhm. moom bëgg wóoru euh, président Macky Sall doon ko tere mën a dem di dikk si ñu fekk tey nag xam na bu baax est que président Macky Sall jot na ci am ndam am déet moom su jàppee ni ni que fu président Macky Sall amul si ndam mom su jàppee ni mën na ci am ndam dañu continuer dem bu ci karam raw di mais la la la la la libre circulation des personnes et des biens sur le territoire national oui. ne peut pas être remise en cause et, et je le répète Bougane Gueye Dani, ak ñi mu ils sont tous des candidats investis sur une liste validée par le Conseil constitutionnel et nous sommes dans une période de pré-campagne am droit mën circuler surtout dem nemmeeku ci ay mbokk ñu leen xamné ni wax deug yàlla catastrophe naturelle la daal seen kaw. effectivement c'est clair monsieur le maire. Gala diaspora bi asalaamaaleykum Serigne Omar Fall waaw Serigne Omar Fall di ku yàlla baxal mu géeju lool ci wàllu asrar ak ñaan moo xam ba ci wàllu bind te joxe ay sangat yu yéeme lool moom Serigne Omar Fall yéen bëgg sixaara jokkool ak Serigne Omar Fall yéen bëgg cangat ci wàllu ubbeeku ak muslaay ba ci protection bayri ak cat ba ci yéeme am faru rab jigéen bu bëgg borom kër mu jafe ko lool ba ci góor gi bëgg soxna mu te ko lool gaaw leen seeti Serigne Omar Fall ba ci ki bëgg tukki am jafe-jafe ba ci yow mi li wàllum këyit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 jokkoo ak moom génn ci xat yi ngeen ne ak seen seeni njàqare seeti leen ko gaaw nattal seen dund téléphone am di 78 566 35 79 ma bamtuwaat numéro Serigne Omar Fall 78 566 35 79 ak Serigne Omar Fall seeni jaaxle jeex na seeti leen ko gaaw candit ci wàllu ubbeeku musla yëg protection bay rek cat ba ci yow mi am faru rab jigéen bu bëgg borom kër mu jafe gaawal seeti Serigne Omar Fall góor bu bëgg soxna tuful làmb mu dëgër gaawal seeti Serigne Omar Fall ki bëgg tukki mu jafe ko wàllum kayit jafe la lool ba ci kiy liggéey te fu mu jub lu ñu ne ko du fii seetil sëriñ Omar Fall bu la jaaxal yéen a bëgg la dugal xalwa gàllaaj ndongo ba ci ci sëriñ Omar Fall lam ci yor doo ko gis fenn ma bamtu ko numéro mooy 78 566 35 79 sëriñ Omar Fall si njàqare jeex